président daal ñun li ñu gis mu liggéey ci dëkk bi rek moo tax ñu bàyyi lépp lu ñu mënoon a jàpp dañ koo bàyyi te jàppale ko ndax président dafa yërëm jigéen président dafa jàppale jigéen surtout Marème fay Sall jabaram yaakaar naa ne ku xool ni mu jàppalee jigéen ñi kon dinañu ngoy ci makki bu baax a baax waaw li ñu li nga xam ne moom la def ci dëkk bi surtout tali yi nga xam ne yóbbu na ko région de Sine nga xam ne bu ñu wàccoon dañuy xonq tur ndax suuf si léegi ñoo ngi ni ku ci wàcc balaa nga doon wax dara dangay dugg sa kër nga sangu ba pare sangootoo ndax godorong bi dem na fu nekk tali yaa ngi ñuul kukk yaakaar naa ne kon ñun waa région de Fatick région euh, euh, de Fatick région de Niakhar dañu war a jàppale Macky ñooy ci Macky jàppale ku bu dëgër xaar ci suñu tànk xaar ci suñu doole yaakaar naa ne ko képp koo gis Macky di liggéey di ko jàppale bu baax a baax a baax a baax surtout da xool place Samb bi Macky ngi ci. bourse sécurité familiale yi naka ngi ci biir ah lu ma kii li mu nekk daal bari na mënuma koo lim yëpp ndax boo ko boo dem ba suba Ila Touba gis ngeen ko lépp loo xam ne Macky liggéey na ko fi ñun nag dañu ne gàcce ma Macky dañu ne jërëjëf Macky Macky li mu def ci dëkk bi kenn mënu koo fay ñun bu dul dara da laa jàppale jàppale sa yaay jàppale sa rak boo xam ne yaa waroon a nekk Dakar ji di ko dimbale Macky nga koy dimbale te région ba kon yaakaar naa ne ku ne ne bàyyi leen Macky du ñu bàyyi Macky waaw man nag maa ngi nii di nuyu sama monsieur le maire. muy Babacar Sidikh Seck HLM te HLM la dëkk jàpp na kéemtalaay katanam mi ngi def kéemtalaay katam moom Babacar Sidikh Seck moom ma dugal ci parti bi moom ak doomam ak jabaram ñoo ma dugal ci parti bi ndax ku nekk xam na ne man war na yàlla PDS la makki xami na ma bu baax muy doom jéen démb jéen jamaane Diouf wante dama bàyyi lépp mooy ci ba mu dëgër ma fos yéene jël ñi ma àndal yëpp ñu sànnil Macky Sall carte Macky duñ ko bàyyi mukk duñ ko bàyyi da bu soobee yàlla première tour rek ci lañuy ye tuddee tour. Premier tour rek jeex waaw liko waral moy depuis 2008 lañ ko topp du lu bess li dañ ko defone dañ koy defaat rek principe ay principe ak conviction moo ñu ci dugaloon moom moo ci bàyyi ba léegi dafa am luñu gissone ci le président de la république mom moo fi bàyyi ba léegi lolo tax euh, ñukoy soutenir en plus ñu giss réalisation lim def ak lim defal ndaw yi loolu dal moñu moñu baye en gros ci le président de la république ba léegi dal